dool fexe ba bépp doomu Sénégal mën a dund dund gu sell te jaar yoon loole bokk na ci diggé yi nga xam ne kii di basiru Diomaye Faye amaloon na ko ci campagne bi mu boole ko itam ci programme am ba tax xeex dund gu cher gi bokk ci mu nar ko jaarale nag ci gis-gisu nguur gi nga xam ne dana dugal loxoom ci yu bëri ngir wàññi dige yi nga xam ne ñii di waa biti réew ñu ngi koy amal jëme ko ci réew mi ba pare itam samp ab koom-koom bi nga xam ne dana sukkandiku ci li nga xam ne mooy jóge ci biir réew mi ba tax na kii di Bassirou Diomaye fay di xam ne ne ci programme am dana fexe ba entreprise yi nekk ci biir réew mi mën a jot ci marché public yi ci anam yu gën a yomb bokk na ci itam nguur goo xam ne dana dugal loxoom ci secteur privé yi ab politique bi nga xam ne day tax entrepreneurs yi ak producteurs yi am part bu am dayoo ci commande publique bi loolee di wane ne secteur privé am na solo lool ci programme bi nga xam ne kii di Bassirou Diomaye fay nar na ko doxal ci biir réew mi di sukkandiku ci gën a ñoŋal am am yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ci wàllum doomi aadama ak ci koom-koom waaye nag dund gu cher gi mooy problème bu njëkk bi nga xam ne nguur gi war na ko régler te mu war ko nag waxtaanee ci talaata bi ak ñii di waa secteur privé ana yan dogal lañ fa mën a jël ngir régler problème bi te du diis lool ci promoteurs yi ak commerçants yi nga xam ne ñu ngi ragal wàññitee fu njëkk yi bu baax laaj boobee nag ëlëm ñëpp waaye nag jotoon nañ ko laaj fii ci nguuru Macky Sall ci atum 2022 ba ñu génnee lu toll ci fukk ak benn dogal yi nga xam ne li ko taxoon a jóg mooy wàññi dund gu cher gi waaye antuwul ba léegi ba tax kii di njiit bu bees bi nag war a joxe ay garantie yu wóor te dëgër ñeel secteur privé bi ngir fexe ba dogal yooyee mën a sax dakk donte secteur privé bi am na dayo lool ci programme bi teewul ci jamono ji ñu toll moom faaw rek ñu def ay sacrifice ngir mën a wàññi dund gu cher gi nga xam ne mu ngi gën di indi ay loraange ci askanu Sénégal